Maxilvision.com La crédibilité, notre credo. boo gisee ñëpp naan Amadou Ba jom ja daa te jox xol soxna Fatou Bintou Pouye ñu gën koo xam ci yaay Pouye ak jàppaleem ci kandidaa bu coalition benn Bokk Yaakaar di Amadou Ba nekk lu ñu teg baaraam taxawaayam ci departement bu Mbacké nekk lu koy wane altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2024 ji moom soxna faatu Bintou Pouye enveloppe bu toll ci 10 millions moom la daal di jagleel lu ëpp juróom fukki groupement yoo xam ne formé woon na leen ñaari weer ci ginnaaw financement yi nga xamante ni jox nañ leen ko dem xool kenn ku ci ne mbootaay ba nga xamante ne moom nga jiite ñi nga xamante ne ñoo dañu àndal ngeen xool naka ngeen koy tourner seen biir képp koo xamante ne góor góorlu na ci bu loolu weesoo lu ngeen liggéey ñu dolli. li nekk étape bu njëkk bi fas na yéene balaa yàgg amalaat beneen taxawaay bu ni mel. ñu ngi xool fii ak gannaaw suba incha allahu rabbi ñi nga xamante ne euh, mun nañ leen a dolli ci financement yi ñu dolli leen ci waaye daal bëgg nañ alxames incha allah. ñu def benn ñu bokk ci yooyu la groupement mu daldi di jagleel jëf ju ni mel ñu jota yëkkati seeni kàddu di dëggal ne jot nañu seen ay enveloppe ñu jota andi ay CD ak i ñaan jëmale ko ci soxna Fatou Bintou Pouye waaw jot naa sama financement kontaan naa lool ndax département bi su fekkoon ne am nañ jigéen ju mel ni yàpp yi mii kon ba nag ni weesu nañ fii. maak sama mbootaay jël nañ sunu enveloppe yëf yi moom macha allah. lii nag la olof Ndiaye di wax rek kuy raam di la bokk bu amee oto yóbbaale la te yàpp yi ñun moom gëm nañ dëgg yàlla lu mu yéene waa Touba gëm baax a baax fu mu nekk nii ne moom nag moom ñun ñoo si des ñoo ko war a fay bor bi. jot naa sama financement maak sama mbootaay gi ma ànd ak. jot naa financement ci yaay puy. affaire bi yaay puy la yaay puy moo ko yor. ci ndaje mi mu daal di sàkku ak jàppale jëmale ko ci candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba ñuy seeni ñaan di sàkku seeni ay jàppale ba suñu candidat bi nga xamante ne moom dañu bëgg mu falu le 24 mars incha allahu rabbi bés bu faloo lépp loo xamante ne doon ngeen ko jooy ne financement bu duggee biir Touba du agsi ci ñun ñu fexe ba loolu lépp dañ loolu yi tax mu daal di jot a fësal naka la ñu war a def ba loolu yi mu bëgg daal di am. bulletin bi bulletin bu marron beige la. candidat Amadou Ba. moom mi nga xamante ne moom moo gën ci Sénégal fi ñu toll nañu fexe ba fal ko. fal bi nga xamante ne moom ka dañ koy fale nag na nekk fal boo xamante ne fal bu leer la bu kenn am lam-laamee bulletin bi bu ngeen ko jëlee bu ngeen ko dugal bu ngeen ci dugalee lii ci biir enveloppe bi bu leen collé enveloppe bi jël leen ko ngeen jël làmmiñ bi dugalante ko ci biir enveloppe bi waaye bu kenn collé enveloppe jar na sax nga dugal ko noonu waaye enveloppe bi boo ko collé dootul baax Talla Sylla nek ku ñu lol lool ci wetu soxna Fatou Bintou di gëna amal sensibilisation jëmele ko ci soxna yi ngir ñu mëna votel Amadou Ba. soxna yi dama leen bëgg wax ne da ngeen am candidat bo xamne mi ngi tuddu Amadou Ba di kat di borom xam-xam yag lol ci administration bu Senegal, mu fas yéene ko jappalé ma leen di ñaan bu ñu le 24 mars ngeen jël bulletin bi ngeen di gis. ngeen jël ko dugal ko ci urne bi ngeen jàppale soxna Fat bint Pouye ngeen jàppale ki nga xam ne mooy le candidat Amadou Ba loolu lañ leen di ñaan yéen ñëpp. mu mel ni message boobu yi soxna yi bàyyi nañu ko xel lool. wote la Amadou Ba rek bulletin baa ngi bulletin bi ku ne xam na ko man yor naa mbootaay ak juróom fu mën na maa wax ne kenn du ci may yàpp yi mii ñëpp yi lañ jëm ñu ngi ñaanal yaay nak yalla nako yalla ak seen wàllu may ndam may ñu ndam ndax ndamul yaay moy suñ ndam ñun ko ñaanal rek ñi fal Amadou Ba premier tour le 24 dem voter Amadou Ba 24 février waaw lepp day leer kay Amadou macha allah day jël ndam li Amadou Ba yalla nako yalla may ndam soxna si ay ronk ñam wad ci ab deñam loli di firndel contentement bu reuy bu mu am ci jëf ji nga xamne soxna Fatou Bintou Pouye madame Mbacké defal nako ko mu di yëkëti bi màkk jagle jagleel ko ko. maa koy ñaanal daal yàlla na fi yàgg téwér ak mboolem kum ko ànd kon daal ma tax jot dama damaa bett affaire bi yëguma ko fii laa ko yëge damaa bett naa màkka ku la bëgg rek moo fa yóbbu ku la bëgg rek moo yóbbu màkka ay fan yu néew dox suñu digg ak élection yi le tax soxna faatu Bintou Pouye di gëna a mane ay activité am jëm ci ndamal candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar di amadu Ba La crédibilité, notre credo.